Aliou Ba secrétaire général équipe Bathie Seras Guinaw Rail en même temps nekk entraîneur bi principal nekk aussi tamit euh, secrétaire général adjoint bu ARELS association des responsables d'école de lutte du Sénégal nekk aussi secrétaire général bu ANELS association nationale des entraîneurs de lutte du Sénégal. kon tey mënuñ ñëw tey ñu dégg ne ak Covid bi dañu am xaw ay subvention dañ dañ joxe en même temps bëgg waxtaaneel ci affaire lamb ji ci huis te tamit tey jii bu ñu demee ba ñu war a woote ba ministère joxe feu vert war ñu mën a tëb ñooñu kon tey ñëw nañ fii dugg nañ ci saal bi ñëw nañ mais nee na dañu woo promoteur yi lañ woo ñoo lañ woo mais balaa ñuy woo promoteur yi bu amul mbër kan lay tëgg fan la war a jaar ci écurie yi la war a jaar ak école de lutte ñoom ñoo ñuy teg ñoo ñu indil fii ay ay ay yoo xam ne utloo ñu ay kayit utloo ñu ay récépissé ñu teg ne dañu bëgg a professionnaliser làmb ji mais ñoom li ñu li nga ne moom moom moom la ñuy doxalee affaire informelle kese moom la ñuy def ndax chaque fois dañu leen def reproche boobu dañ leen koy wax bu fekkente ne fa lañ bokk ci écurie ak ay école de dañu kilifa dañu war a am ay responsable bu ñu bëggee nag tëb seen responsable ñoo fii dem woo di bëgg ñoom a def nii jaxase affaire parce que boo ñëwee ci benn kuréel nga ñëw ci benn structure nga fekk boo ñëwee nga nga ñëw xëcc ñële yóbbu nga jël ñeneen bàyyi seen principal seen responsable yi léegi loolu nan lay mën a sotte dañu bëgg nañ jox gëdd ñi nga xam ne moom moo di responsable écurie muy président ak secrétaire généraux yi ak ña fa nekk nañ leen jox gëdd te xam ne mbër yi ndaw yi dañ cee bokk ñun chaque année dañuy dañuy dañuy dañuy wu ñenn ñi di réaffilié wu mbër yi tamit dañuy dem dañuy dañuy dem licence renouvellement dem uti ay certificat d'aptitude uti uti lépp di entraîner salle def lu nekk ñuy dagg licence di ku nekk di nga loolu plus de 200000 nga ko ci nga dugal ko foofu waaw léegi pourquoi léegi ñoom bu fekkee dafa impacté dafa am dëgg-dëgg bu ñu war a kii mais ñu mën a mën a bàyyi écrit dañoo war a woo ñu waxtaan du question ay problème xaalis wala dara mais dañu bëgg nañu jox gëdd bu ñu bi ñu am nañ ñu ko jox loolu lañu bëgg dañoo dugg si biir ñoom ñu wax ñu ne dañoo woo promoteurs yi ñoom la ñu woo léegi fekk ñun daal comme ñoom lañu woo nañu ñeneen ñi daal mën nañ leen may mais comment se fait man loolu laa mënut a nangu ba léegi te nag par respect am yar ak teggin moo tax ñu nangu loolu mais nañoo toog insister toog bu yeboo réunion bi jaaree fa yàq mais par respect bañ ñu ne rek ñii peut-être yarul wala nangam moom moo tax mais loolu dafa nekk loo du yoon ñoom waruñu woon sax accepté nekk mais ñu a woolee ñuy wax promoteur di bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy responsable écurie ak ak xaar seen tour dem ci ngeen dem ci président euh, kii Bira Sène am ñun ay promoteur arels jënd nañ daaw carte jënd jën carte jënd nañ licence su licence promoteur jën nañ ko sans frappe te fii ay ñi fi ay licence frappe ak ak sans frappe ñoom ñoom ñoo fi nekk. et puis suñu arrêté daal nee nañ bàyyi benn xaw ma représentant ñëw ñëw toog fa waxtaan bi foog na war a nekk waxtaan bi yaatu. parce que ñoom keroog bañ toogee seen wax bu ñu dajee ñoom wax nañ ne jox nañ leen subvention mais pour CNG la ak pour promoteurs yi fan la tegee ñu jox ay promoteur ak waa CNG subvention bàyyi ñu bàyyi écurie école de lutte loolu écrits yi boo bëggee ñu subventionné leen ci yan anam leen lan leen war a subventionné. waaye bu ñu mënee subven bu promoteur CNG bu ñu mënee subventionné benn ñu defal ko écurie ak école ñoom ñoom ci yan condition moom la ñu leen subventionné ñun déglu dañuy affilier chaque année. dañuy dañuy dañuy dañuy def ay renouvellement licence jël suñu xaalis di ko fa dugal mbëri di bëre. waaw mbëri léegi ñoom ñoom bu ñu bëri eh, impacté wuñu ñoom tamit mbëri su ma la déggee mooy que ne yow écrit yi dañ leen impacté covid bi daf leen impacté wala waaw mais loolu jaru nga question boobu jaru nga ma koy laaj sax su fekkente ne kay promoteur yi impacté wu ak ak waa CNG kon mbëri yi nga xam ñun daaw ñu amay mbëri yoo xam dañoo dem ba war a bëri suba ñu arrêté ko ñu jëndoon seen def seen regroupement def lépp lépp lañ defoon ba pare ñu mën di yàq loolu lépp kon donc kay loolu fa impacté day amee kay mbëri yi gën a impacté surtout nag mbëri ndaw yi mbëri ndaw yi dañ war a xalaat message bi kan ngeen koy euh, envoyé Bira Sène wala. ministre bi lañ koy envoyé président de la république ak ak président Bira ñoom ñëpp lañ koy parce que ñoom ñëpp ils sont tous concernés. donc euh, man li may li ma mën di wax rek man interpellation bi may def dama koy interpeller mooy les autorités de ce pays la parce que lamb bu ñu koy wax école ak écurie yi moo tax ñuy wax làmb école ak écurie yi moom la promoteur yi di seet si moom la ñeneen di sepp pour lamb mën a am. mais su fekkee daa am loo xam ne dañ ko war a def ci làmb ñu war a waxtaan ci làmb dañuy war a woo toutes les composante de la làmb à commencer par les président les responsables des écoles et des écuries parce que ak lu mun mënti demee ñoom ñooy base bi parce que foofu la mbër yi di jógee pour mën a bëri ji man mënuma comprendre ñuy woote pour discuter nan la ñuy ubbee saison bi. les subvention yi nga xam ni moom mooy dem ci par rapport ñi nga xam ni euh, ci dañuy yëngatu ci làmb ñu bàyyi école yeeg écurie yi dem di woo des des des promoteurs des amateurs en quoi. les promoteurs et les amateurs sont plus impactés que que que, que les les écoles et les écrits je crois que li ñuy def nii c'est justement du euh, la ñuy def di xool ñi nga xam ni peut-être ay ay ay ay ay ay yoo xam ni dañ leen di woo prétendant que ñoom ñoo yor lamb yoruñu lamb bi lamb bi les écoles et les écrits su fekkee am na loo xam ni dafa jógee ci nguur gi mu doon xaalisu sénégalais yëpp ñu war ko damper les sportifs particulièrement les lutteurs dañ leen war woo les responsables des écoles et des écrits xool à quel point la ñu impacté ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu subventionné la à à hauteur de ça mais li ñuy def nii jëmul kër parce que lamb ñun ñëpp ko moom Sénégal moom moom lamb donc su amee loo xam ne dañ koy waxtaanee dañu war a woo ñëpp waruñu woo ñii di bàyyi ñii wala di mujjee woo ñii waaw ñun loolu mooy suñ li nga xam ne moo ñu naqarte saison beneen saison lañ jëm si la si suñu continuer di def lii ñun ñun n'excluons pas de ne pas réaffilier parce que mënuñu nekk di affilier wu di réaffilier wu ci loo xam ni on ne tient pas en considération joxuñu ñu benn considération donc dañuy woo les autorités que ñu saisir les les ñi nga xam ne ñooy diriger lamb ji ñu xam lan la ñuy def parce que affaire bi faut pas que ñu def ko affaire lobby damp ay ñetti nit ñu dem yóbbu subvention yi le reste toog di galérer parce que dans les écoles et les écrits y a des xale ñoo fi nekk. nekk nekk si ay situation yu difficile ba tax ñenn ñi di di jël gaal di dem di def leneen ak leneen ak leneen donc il faut que les gars ñu xam savoir raison garder ñu jéem a xool les les responsables des écoles et des écuries ñu impliqué leen ci processus boobu boo xam ne dañ ko war a def par rapport à lamb nan la war a demee ak nan la war a jugee loolu mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy la xam gars yi merci. man moom dama ñëwoon tey sax pour représenter Fallou Production Kolda. dafa ñëw CNG bëgg dagg licence ñu ni ko un million euh, deux cent ngay dagg moom parce que daf euh, délai yi dafa passé parce que licence bi trois cent mille ngay njëkk a daggee après day day day doublé par rapport ak temps bi bu ñu dem waxaat mu waxtaan ba ñu defal ko ko six cent mille mu dagg licence six cent mille te ñu repre ñu woo yi nekk fii Dakar yëpp ak promoteurs yu Sénégal gis naa fi di jaxate réunion bi commencé woon na déroulé ba ci kanam après nit moo jël parole euh, gis ni salle bi mi ngi nit ñaa ngi ñëw mu xam naa ne peut-être loolu dérangé ko man bi ma jëlee parole en tan que euh, bi ma bi ma présenté en tant que représentant Fallou Production bu Kolda dañ ñoom dañ ñoom ñëpp di reetaan quoi mel ni mel ni Kolda ñoom bokkuñu Sénégal quoi mais CNG la daggee licence daggul licence CRG de CNG la daggee licence en tout cas man moom moo taxoon ma ñëw fii te 600000 la daggee ñi nekk ci biir yëpp 300000 lañ dagg te jotul tëgg benn combat fi seloon na ay combat ba pare léegi dafay ñàkk quoi parce que Kolda la dëkk si di jeexate ko doon kaas léegi Euh, dafa wax li ma waroon a wax moo tax ma toog di déglu en tout cas damay ñëw ci beneen casse-tête représentant école de lutte yi nekk Guédiawaye ak écurie yi suñu mbëri ndaw yi jël avance yëpp nous sommes des impactés gis nga Mbaye Tine numéro 2 dafa war a bëre ak ak Diarra 2 le 12 avril bi passé ñu jox ko avance am mu jeex te te te te dégg naa joxaat nañ promoteur bi xaalis ba pare war nañ leen joxaat Youssou nduur bu per Balla et tant d'autres Gakou fils de Balla bu école de Balla Gaye boo yooyu yëpp en tout cas man ñi ngi sama ginnaaw ñoom nee nañ du ñu bëre ñoom nee nañ du ñu bëre te suñu mbëri ndaw yi jëloon ay avance yëpp du ñu bëre te ñun en tant que école de lutte de Mor Fadam ñun du ñu affilié CNG pour l' instant dañu téye suñu affiliation pour l' instant affilié guñu ñu nag ñun dañu nekk ci benn dañu dañu tënku ci benn kuréel bu ñu woowee RLC ñoom la ñuy déglu suñ jëlul seen responsabilité ñun dañuy dem suñu bopp en tout cas booy nekk géejuwaay yëpp man sama ginnaaw la ñu topp nee ma buñ lañ joxaatul avance du ñu bëre bu ñu génneewul xaalis bi jox leen ko ñoom booy parce que c'est c'est les c'est les plus impactés promoteurs yi ngi si yëpp ay 4x4 fi gaare yor seen business di job seen job mbër yi am na ci boo xam ne bàyyi nañ bàyyi nañ seen métier ndax mbëre c'est des professionnels dañuy fay salle di dem fajar gi dun di sonn di fay assurance di fay lépp école dune moo fanam daaw am na 30 30 licenciés boo xoolee doo ko gis si école yu bari joso ngi nii dóor dóoraat affilié gul Bac Seras affilié gul euh, Yoff affilié te man maa ngi leen di woo si sama ginnaaw ñu bañ a affluer parce que euh, ñun soxlawuñu ay nekk di siège CNG pour di bëgg a tëj suñu gémmiñ quoi. lii nii fond Covid bi génn nii mbër yi ci war a jël seen wàll école de lutte war ci jël seen wàll ñun dañu daan subventionné nañu def lépp ñu sommes nag des bénévoles ñu xool ci loolu moo tax ñu bëgg ñu tànc te fii Sénégal man maa ngi koy wax waa ARS nee naan ànd nga ci li ñuy def kon ñi war a wax nañu wax man nag bëgg moom que su may ñoo fi nekk ak sumay grand frère bëgg ma wax mais en tout cas na nga xam ni école de mois forum moom combat guy gërëg moom amagul guy gërëg rek amagul pour mu leer sa bopp parce que man maa affilié chaque année te du ma affilié pour l' instant su ma gisul lu leer du ma affilié te maa ngi woo yeneen école de lutte yi nekk Guédiawaye ak yu nekk fii du ñu affilié loolu moom maa ngi woo maa ngi woo ñëpp ah merci beaucoup Ba man la Baytir Ndoye président écurie Yoff commencé mooy gis na promoteur yi si ñoom ñoo bëgg a ak sunu mbër ñoom il préfère woo mbër yi di jox si suuf mais loolu du jàll ñun à notre niveau dootuñu affilié te gis nga wuude nu mën a gis la lay ëwale mooy CNG woo mooy ministre ñoom surtout pro ils veulent pas de nous parce que ñun on dérange gis nga léegi benn mbër amatul quoi bëre te président écrit bi kiiwul si ñëwul man de personnellement dootuma si su fekkee ne dañuy dem di leen woo di leen jox si marché wala bu euh, tëbaski jotee jox leen loolu mënta tam parce que ñoom lu bu jëkkoon na léegi dafa changé mais ñun on dérange pas parce que ñun dañu am sunu aref lañu ay kilifa lañu am nañu yeneen liggéey ñun topp du ñoo xam ne dañu toppi mbër ñun ñooy def si mbër yi te xam nga lan la pour suñu koñ a tax ak yooyu promoteur yi rek on dérange te loolu mënta wax naa léegi bind naa ko journaux yu bari dès demain lépp dana génn ñun dootuñu affilié tant ñoom seen bopp ñëwuñu wax wax waxootuma Matar Ba mais président si boppam na recevoir les présidents école de lutte foofu laay waxee. ñoo leen di fragiliser ma ne kenn mënuñu fragiliser xam nga lan la seytaane moo ñu fragiliser te seytaane xam kan moo jiito jiitu promoteur yi du keneen waaw. voilà euh, kii man la Yaya Diallo président écurie écurie de lutte Malika Mbolo donc nekk membre de l'ARES bokk ci comité directeur de l'ARES l'essentiel li ma gënoon li ma bëggoon wax ñoom ñëpp wax nañ ko daanaka. mais je lance un appel à tous les écoles et écuries du Sénégal yu nekk dans les régions ñu ñu affilié ci ARELS. ARELS mooy association responsable école et écurie de lutte du Sénégal pourquoi parce que on va aller vers une fédération. ministre bi dafa sas kii euh, Bira Sène le président CNG pour mën a mën a liggéey durant ces deux ans là pour ñu mën a dem fédération donc fédération pour def ko. il faut que toutes les quatorze régions du Sénégal fu fépp fu école et nekk nekk war nga mën a affilier ci ARELS. maintenant le président de la république maa lay lancer appel dama bëgg nga bàyyi xel ci fléau bi nga xam mooy xew muy mbëkk mi Barça wala Barsax li ci gën a bëri c'est la jeunesse qui qui part. donc les VIP lutteurs VIP yi nga gis nii ya gaare seen kàrkar yor seen visa visa dama ko ñëw ñooñu na n'ont rien à voir maintenant les subventions que vous les avez octroyées euh, soi-disant les les les lutteurs euh, euh VIP en activité donc dama bëggoon nga bàyyi xel ci les petits lutteurs petites catégories yi nga xam ñoo nekk ci banlieue bi am métier di bàyyi seen métier di topp ci lutte bi pour mën a teral seen waajur. benn précision pour le moment état bi comme subventionné moom mooy yi mais pas lutteurs non c'est-à-dire lutteurs yi promoteur naka ngay nga naka ngay euh, subventionné promoteur. bàyyi lutteur promoteur kan lay promettre kan moo tax promoteur di promettre mais tu vas promettre les lutteurs maintenant celui qui gère les lutteurs ki nga xam moo leen jëndal assurance di leen affilier chaque chaque année dix mille francs chacun donc boo xoolee benn écurie bu am trente lutteurs chacun dix mille francs d' donc kooku ça fait trois cent mille trois cent mille divisé par cent cent soixante écuries nous sommes cent soixante au Sénégal donc loolu c' est donc vraiment je